welcome to another Ramadan episode. Enjoy. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi uh, some home cooking family bi uh, hope you all are doing very well uh, ma ne ko ne alaikum nama naa leen masha allah si channel si waañ bi Wa nama naa leen si waañ bi torop torop torop masha allah parce que gis nga ne dañ amoon a little break masha allah loolu leen leen nekkoon di leen indil si suñ am um, travel vlog bi desen nañ sax ba léegi two episodes parce que uh, it was just a seven day um um um um travel bon dañ bëggoon di leen indil yëpp moo tax ñu doon film every time ba pare ma ñëw tamit ma doon jël time pour edit bi moo tax sax mu xaw xaw ku gudda waaye mu ne maa ngi ñëw welcome back alhamdulilahi rabil alamin ñu njëkk a sant yàlla bu baax a baax ba nga xamee ne yàlla di dimbale nañu ñu ñëw fekkee war beneen ramadan macha allah ñaanal képp ki nga xam ne yaa ngi am benn benn feebar wala lépp li nga xam ne rek am yaa ngi ko jànkuwanteel yal na la ko yàlla teggil incha allah yàlla mun na ko ak ñi nga xam ne tamit jiitu nañ ba léegi di leen ah, wax ne rek ñu ngi la ñëw fàttaliku saa bu nekkat te tamit duñ leen fàtte si ñaan macha allah ah, di wax ne ñu ñu fi ne des yal na ñu fi yàlla bàyyi. yàlla ñu fi yàlla bàyyi bàyyi ñu fi ñu gunge suñuy njaboot lu baree baree baree baree baree bàyyi fi suñu suñu yaay yi fi des tamit ñoom tamit ñu fekkee tamit lu bari incha allah incha allah incha allah so yéen ñëpp maa ngi la ñoo nuyu bu baax a baax a baax hello everyone again welcome back to another am um, home cooking uh, Ramadan am um, uh, episodes that am um, you know I always have for you guys every Ramadan. We have witnessed another Ramadan in good health, mashallah. So yeah, so welcome back to another Ramadan episode. So today, uh, it's not Ramadan yet. Today is Sunday. today is Saturday the the 9th. So I'm just I'm uh, going to do my Ramadan prep. Um, tey you, macha allah dañoo def suñ Ramadan prep si loolu la ñoo def soo tamit ne xaaral a film ko su ko defee ñu ànd ak yéen waaw tey is Sunday the 9th so maa ngi ah, astafurlah why am I just mixing it it's Saturday the 9 so I'm just maa nii di ñëw des ma Ramadan prep si mais nag you know what let me just film it parce que ñëpp xam nañ ne macha allah Ramadan bi nii moom dina xala xëcc tuuti rek dab dog bi parce que wax dëgg neex yàlla gis nañ ne dina nekk na starting bi na nekk ay boori 6 di dem di dem di dem te ñëpp xam nañ ne ñun ñi nga xam ne tamit ñu ngi liggéey xëj na this time dina xalaat métti torop si ñun du ma du ma wax métti sax waaye time bi na xale challenge a little bit as well moo tax ma ne xaaral man moom ma door agum ah, pour def rek suma one week preps yi nga xam ne xëj na su fekkee ne incha allah Monday la ñoo or dina mu xam ne ah, suñ defee preps yi nii from now xëj naa def lu nga xam ne ah, organise yëpp loo xam ne moom la ñoo war a am am pour si biir week bi nga xam ne dina yomb ak ñun su ko defee incha allah next week tamit su neexee yàlla another saturday ñu defar another prep pour si biir bu nga xam ne xëy na soo ñëwee doo am time pour waste so moo tax maa ngi am suma kanaaw fii nii suma ay am bagage yi nga xam ne suma am chicken breast am suma chicken as well full chicken am suma gin ñëw defar suma snacks and everything defar suma juice set halay yi favorite juice bi nga xamne wonjo mo nak sa favorite juice mom la bëgg a defar so men ne xaaral ma indiwaat fii nii rek ak yeen tamit won len gis ngeen ah, bi tay nak dama fi nekk tay di di dama bëgg a defar snacks waaye ah, duma def like the the dough from scratch I have this recommendation bi nga xamne mom lañ ma jox you know it's like a prata bread just like I'm um, like dama am prata bread and also I also have the bread so moom laa use ko defar suma pies yi insha allah dinaa defar bugga naa defar um, meat pie bugga defar spring waaw bugga defar spring rolls ba pare tamit bëgg a defar tamit ah, sausage sausage rolls astafurlah cheese rolls boobu naa ko spring roll cheese roll laay defar ak tamit defar mooy defar am cheese roll bi ak am sausage roll bi kon bi fi laa ko usee den man ma defar am moom tamit. bien so loolu laa wax ne rek mën a xaaral ma ñëw su ñu ànd ak suñu nga xam ne tamit moo ñëw gunge si suñ biir waañ mooy tax tamit suñ toog a yomba mooy tax tamit yëpp easy ak ñun nga xam ne suñ defaree ba mu baax suñ ñëwee rek dañoo génnee benn suñoo liggéey tegee boo rek mu di force nga xam ne soo ñëwee doo nekk dangaa start from scratch liñ ne dangaa ñëw rek commencé sa togg straight away na la jox tamit ne soo amee sa benn 3 hours sax Eh, soo wàccee at least xam nga ne prep nga mu gën a yomba si yéen so alhamdulilah ñu door incha allah incha allah su ko defee nag suñ defee prep si ba ramadaan bi door incha allah time ba ma am rek dinaa ñëw indi leen vidéo soppee leen tamit mun nga ñëw follow suñu home cooking am um, tiktok bi as well ah, naa ko fi def su ko defee ngeen um, que bi foofu noonu moo gën a yomba boobu dangaa edit rek waaye xam nga bii foog nga defar ko toog teg sa time edit ko waaye incha allah dinaa try suma level best pour indil leen bépp recipe bi nga xam ne maa ngi ko def si ramadan bi incha allah soo tee leen dem ñu door soo léegi nañu daanu sa affaire si fu mu nekk suma gars yi soo gis nga balaa maa ñëw raxas naa suma am bagage yi yëpp yëpp dama ko raxas already ah, si chicken breast la moom laa am ni couple of them xar naa bari parce que dama ko war a si dama ko war a dog frej ko mu def ko am separate ko into three different bags so three different ma season ko bu nekk ak each seasoning ba ma bugga parce que xëj na lii mun na maa dimbale xëj na benn baag mun naa def xëj na for exemple quick chicken pasta beneen baag mun naa koo def like wrap mun naa ko def chicken wrap so beneen baag tamit mun naa ko def like uh, skewers like chicken skewers xam nga comme yooyu noonu gaaw na so moo ma def ko nii ba pare tamit def tamit a little bit of chicken am um, like am um, am um, chicken balls comme boulette bi chicken balls with curry waaw bi tambah tax def bari li so ma am fii nii tamit gis ngeen li ni tamit is the whole chicken dama ko dox ci diga yeah so dama ko dox ci diga is all washed as well clean and ready to be um used so gis ngeen mi ngi ni so mom tam dama ko rof suñ rof be ngi ni so dama ko rof nga xam suma ko ci seasoning rek teg ko def ko dugal ko waat si fri si freezer bi nga xam ne xëy na su ma ne ok ëllëg incha allah rabbi dama bëgg a toog a benn cin soo mun na koo génnee ma baaral ko xëy na tey si guddi gi su fekkee ne suñ dogee ba nga fiix nga baaral ko nga xam ne ëllëg soo wàccee soo ñëwee sóob rek moo la see fekk xam nga yooyu noonu dafaa def life very easy ma amaat fii tamit jën lii sea bream la moom laa am moom tamit dama ko roof ba mu baax su ko defee moom tamit dina mun a def xëy na ceeb bu weex bu suulaale bu neex ta saf yina ma gën a xam rek moom tamit mun nga koo def comme di same thing na soo xam ne ëllëg loolu laa bëgg a tooga soo demee ba pere sa def everything mun nga koo tegee boor moom tamit fry def yëpp moom tamit commencé ko si guddi gi ëllëg soo ñëwee incha allah rabi rek nga def sa lifin mu yomb bu bugga dee soo lii moo nekk suma am chicken lifin bi naka meatballs bi ma war a mooy ma leen doon wax Inga, sisi nagu ma ko def moko dama wara a wal suma isa wi ko ni tamit dama ko ñew tamit si la mo dem so dama baxal suma potatoes bi so moom tamit fi la mo dem inshallah allah rabbi si mit bi su he yàlla yep so legi man fa amé tamit suma am bisa wi ingredients e yooyu noonu moo nekk ni so lamay soxla rek ma jël ñu am fi tamit comme beef bi ni mom la use pour the sausage um, rolls so um, ma prefer use this corn beef bete mom moy defar boobu nonu antenne nañ defar tam cheese rolls as well ba pare tamit am nañ defar tamit waaw ak wonja na bitin so léegi ñu ñëw door xaaral ma dis ma stick bi su ko defee ñu ñëw door ro fa gum so léegi gis ma gaay ñu ñëw dooree nak fi ni xaaral na gis bi ni tuti su ñu dooree yéen a ngi gis ya ma pousse nii tuuti tuuti ngeen gis yaa soo léegi roof bi mo nekk ni gis ngeen suñu rof bi te demba dañ ko defar ni sax dañ dañ jéxalo so wow so ana ñi nga xam ne mosaguñ seasoning bi hmm. naa leen ni seasoning bi da ah ah na ah, da xamna le da no pale na wow so legi gis ñaan suñ ko mu ñaan mo ngeen moo nekk nii gis so mu ngóob damaa def lo xala sakan parce que mom la ñu use tamit pour rof jeni so ma def lo xala sakan ñu Olha gars, John Jack. So this ngeen ba pare tamit ah, maa ngi am am maa ngi last week maa ngi jëndoon naa ko indi fii sa ngeen gis ko maa ngi jëndoon like couple of like am wings ba pare ma jënda am um, drumstick soo yooyu noonu yëpp season naa ko ba mbuus mbuus ko comme naka laa ko def dama leen ko dee woon saay bu nekk soo boobu moom is of the way nga xam ne comme ma leen waxee rek dafaa yomba def sa yu am yooyu noonu rek yéen a ma gën a xam soo mu naa Touré Kunda commencé waat nañ di caalit xam nga ñoom a caalit moom suma ak suma kali Touré Kunda caalit <laughs> rek la ñu soo lii mooy suñu auto pause bi moo nekk nii gis ngeen suñu auto pause seasoning bi moo nekk nii soo a def te gi tam léegi léegi mun nga koo season tuuti rek xam ne soo ko fraayee dina ko jox kala bu rafet hmm, parce que bu xonq la ma def tuuti rek bu am mu jox ko dat kola instant xam ngeen ji comme nag laa ko waxee dafa yomb nga su si sànni nii tegee ko hmm? roob naa ko ba mu na xorom moom dafa am dafa am solo ba pare xam nga looy dugalaat si frite bi daf day mën a jël xorom

finish am you know def am rof bi legui li ma def moy nga sisine bi rof bi la jëlaat nii dama ko si bugg a raay nii rek touti si jën bi ak tam mako ko sisinee ba pare xorom moom tamit nga legui legui ñu faté sax ay xorom mo am solo la sampai karena suka na su paree nii rek ma defaat ko ko defin So ko si fry sah, nga xam ne soo ko fry fray sax mun nga koo fray soo kau frayee ba pare nga jël ko def freezer bi tuh dah tara bapak dengan ham xam so itu agak so ada eh. batu agak bapak dengan jël dengan tumbal xam nga man dama dee bugg a ngam parce que man moom dama dee bugg a dee fray mau jën jen dengan ham nih dapat kau fry loh nga xam ne dafa comme frayuloo ko moom doko fraye ba pare parce que mom skin bi ko dee sonal skin jën bi so ko mom mata dama day tumbal dama day fraye iya, ba mo nah. so léegi bi tam param fiske nga li tay lii warona su ligey nek fi commencer rew commencer from scratch was jinn rof def yo non yeb jël na time ndax du wa so at least bi ni save naa time a little bit ñëw rek comme ni ma ko waxee su ko baralé sax day before soo baaralee ceeb bi dee before novembre incha allah ñu ko xam ne def ko si mbuus bi si mbuusam bi So let my season the mince meat just a little bit. so I'm using my seasoning salt, which have lovely spices and herbs. So yeah. Let them now blend. spring onions parsley jalapenos ak yooyu noonu together Ya xam ne tamit dinaa ko si def mu gën koo yokk caf ka so this is so then ma def xorom as well man na dama dee eyeball de yeah so moom seasoning salt bi rek that's it it does the job English speak some so bëccëg mu ngi nii mu ngi maa mu ngi mu ngi maa dimbale si chicken breast bi di ma ko dogal nga xam ne dina yomba gisee moom tam moom ma koo dogal donc ma bëgg dogal ma ko bii dafa koo dog mu xalaat rëy parce que ko wér defar raab beneen bi mu dogal ma ko na ma ko dogal mu gën a rëy mu gën rëy pour skiwers yeah guys, it's Betty, so I'm just going to stay on my mom's channel for a little bit. So now I'm going to be making the cheese rolls. I'm going to be using this paraffin and you just need to get some parsley and some mozzarella cheese or some normal grated cheese and mix it all together like this. So I'm just going to open this and start making the cheese rolls. So, come after. Jesus. So Mama's gonna help me open this and then we're going to start. Just like a dough. Yeah, just like a dough. dough. The parasite is just like doughs, basically just dough that's already doughed. So, um, now I just need to open it and start making the cheese rolls. They're very smart. They decided to put it into one section so that it doesn't become sticky. And there's 15 in each one. So in here I think there is around, around like 10, 25. Anyways, this is what the parasol looks like. It's basically dough. And so. so this is how the um, nii la be bi mel gis nga gars dañ me. Put boom sticky so i am not in Asda if you go to Asda or any halal um, section place gis nga so this time mom, this is how I um, they so basically they did it like this so it does not become very sticky gonna cut it in half and then you can do your roll and then you can start doing your roll so, so you do your own roll I don't know how you're gonna do it Anyway, Betty is doing her roll. Let me come to mine. Okay, so while mommy is doing the meat, I'm gonna start doing my roll. So wait to put it on. We'll just put it like this, and after you can put it back in the fridge. To like you know, and then on the day of Ramadan, you can start cooking it. You know, save some leftovers. Okay, mommy, let me roll it. Okay. It to We're gonna even mix some particular and see how the So I'm just gonna talk a little bit. Still, my mom's channel. It's payback time. She stole my channel once, trying to steal her. <laughs> okay, so basically, I'm just going to, as you can see, again, if you guys want to make this recipe, go ahead. Just go ahead. Don't be afraid to make a recipe of home cooking with Maribas. If this is home cooking with And then you need to make sure you press it in your little bit. Okay, wait, but I'm gonna leave you. I'm gonna undo my prayers. Mm hmm Okay, you finish up. I'm just gonna stir check. How many have you done? Two. Okay. Just hold up if you feel that it's not close, you have to put more. Yeah. Okay. And also, word of advice: if you feel like it's not closed, maybe put some more on like this edge, and then close that will um, probably close. So, just gonna continuously do this until. so guys i am filling bit for the meat pie yeah I just um, want it simple and then yeah loolu ma nekk suma filling bi def naa ko potato si seen dan that's it Okay, i I'm just gonna go and pray while Betty is doing the sausage and the cheese rolls then we will join go. So now I am going to make some sausage rolls. I already tested a few out just to see if it will work. So just do the same process. You cut it in the middle. You use one. You get the sausage and then you put in the middle. You make sure it does this and then you roll it from there. And do the same process. Also put some of this on if you feel like there's not enough dough, obviously you should put more guys gis ngeen bétis am sausage rolls na so tortilla bread bread bi rek lañ use it was easy xam nga tortilla bread bi soo ko fryé is pare na léegi ñu ñëw nag def ko si mbuus am na yu defar na ko tamit ba pare am nay nekk nii am nay nekk nii ci suul bi na so lii moom dinañu yóbbu for at least xëj na yes suñ ko mixé yëpp together ak snacks yi ñu am yëpp moom dinañu yóbbu so léegi xaaral ñëw na ma. léegi ma si kawam so lii suñ chicken breast bi la moom laa def fii nii ak. am some parsley spring onions green pepper jalapenos and garlic doy ma def fa mbuuru so dama ko war a fit pour suñ mi bool bi pour am war a tooga meat ball curry bu ma bëgg war a tooga like meat ball stew xëy ngeen ne bulet bii dama ko def bu curry daf doon test nii am lifinam bi fry ko soo gis ngeen ngi sana kalau kau fry ini am a very nice am living lebih bi moy bread bi mau lañ def crunchy haramos bismillah hmm do ko ko sangat ko hmm very nice ini lagi dama nyawa dapat sa diw ambil xam am na am naka lañ ko def sa dangka yes wo Ambur masih dapat ma si def daf Oh, Please get mommy the silver or golden button. Everyone say amen in the YouTube. Say amen. Zainab is praying for me to have the YouTube silver button silver, or, right or oh, So say amen, everyone. please say amen. <laughs> Say amen, please. Say amen, please now. Please. <laughs> two, one. amiin. dama dem nag fry suma am bulet bi dama ko fry nga xam ne su ma ko fryee ba mu seer ma def ko si freezer def ko si freezer bi waaw pour nag togga bi yomb waaw nga xam ne si biir bi biir bi incha allah neexee yàlla gay ah léegi fum nek nak mu ngi ni fum nek nekk pere na sliceal na ma suma chicken bi yep naka la ko bëggee so ma ngi ko def ni in three different bowl so bi, mom gis ngeen slice naka la sewee parce que dama ko bëgga def chicken wrap chicken wrap bu saf mo na ko nekk so mu ngi ni mo tamat def ko slice yu sew sew bi mom mu na mo nekk like chicken pasta xëy dess mo ma toga pasta or you know something rek ma mu ngi ni wala ma def bëgga defar Chinese or something mu na ko use Bi, mom gis ngeen chunks yu mag yu mag la na moo ko defaral cong su ma xëy na pour suma skiwa si soo gis nga soo dama ko ñëw nag season soo mu ngo léegi nañu ñu ñëw nag season léegi all purpose season yi bi moom laa bëgg a use si bii nii ci kin lifin bi um, pour uh, rab bi léegi bii mooy lifin bi naka lañ ko sax anything to do with ma def ci salt bi te ma def itam salt bi tam a little bit si am lifin bi ma def tamit la ma ko freeze ma haram, pas xorom parce que fridge bepp day mun a jël xorom daf day mun lifin bi ma def ni so su ngeen gis yu ndaw yi ni daf day mun daf laa mun a dimbale hmm? the same thing na rap la ko def rap bu bu neex sax inshallah allah bii tamit ma def ko ci kenski suma dama ko bëggoon sol skiwa si léegi nii sax waaye du baax parce que maa ngi war a defar wonju lu ko mooy tey duma fi teel a jógee waaye at least defar naa yëpp ba sisin ko moom dina yomba ko waree togg damaa génnee skiwa sol ko fu mu nekk nag ma def lan ci nga baax bu nekk ma gisin nga xam ne naa xam bu nekk pour lan defee bi bii ñu def yëpp ma ngoog suuf suma gaay gis ngeen fu mu nekk nag yii yëpp moom pare na moom bii bulet bi la gis ngeen ba pare lu ma fas yéene def incha allahu rabbi si dis ramadan mooy damaa just tooga loo xam ne lu em la moo nekk parce que ramadan bi dang dee mun a tooga lu xala sakan xij na si ëllëg sa xel nekk si leneen rek nga tooga loolu mu ngi des si fridge bi soo noonu ngaa nekk ba after yi nga toogoon na ko mujjee tuur sax soo moo tax dama bëgg a def loo xam ne dañ a nekk si bés bi wala su fekkee ne xëy ko gars yi fansi nañ ne foofu ren rek la moo am bii moom is of the way bii moom naa si defal um, bulet lifin bu saf sax kori kori bu safa safa sax laa ko def incha allah rabbi ba pare maalo ma tooga ko ak um, su ma ko tooga ma def si um, coconut milk tok tok ko mu very healthy inshallah rabbi uh kon naan na indi recipe bobu non inshallah suma ko toga ye na kori kori curry chicken kori blood bi naa la ko indi so legi ma ñew nak tegee li ap côté ma ñew nak jekali suma suma gaay legi fu mu nekk nag ma nak ah ñu ñu na suñu fi fi mu ngi ni Legi ñu nekkal ni ni suñu fi nii nak legi lima def moy dama ko dog ni insa in the middle ko dama ko defoo won bi rek legi ñu def ko ni ana suñu paling yang panjang di Dapur Emrak. <coughs> Minta benda lebih juga ya lebar na. Dapur Emrak sempat aku zinap deh. Eh, ada bubuk afir heh. Berapa ada bi kumur si bayi ayam manjahan nama. Munga hola, dengan ku dega. Munga ku ignore ni. Yang mana semua ignore utai zinap rek lupa. Kuatin asal def saya bisa pun mute ju. Wah anyway, ramo orang dah kom side bini, mau furi ok so ni la moom nga xamne pour soko ko mu teju xam nga ak sa bi tamit def fii nii tamit sa bi fori ni da ngeen def nii defaat ci bi na fu nek après xam ngeen am lifin bi dou bi dafa neex neex bo xam dafa melni dafa melni gaay dañ ko defaale ak sukur wuux xalé bañ ko fraayee wuu duubu saf la wa gis ngeen fi seen defé ni fi ma doxé na mu nga set wécc bii ñu def ko ni mu dugga donc ñu def ko nii ñu def ko nii na xam ne li pati gisa mun naa ko def nii kenn du ma rey daan naa am daal su ma lifin rek nguuk jeexul tama ma ko fii nanka ngook waa suma gars seen mu ngi suma ñetti waaw li nga xamne mom mom mom dina ma parce que yeah so mu ngi ni the dough is very very nice guys so ko fry si nga ko de ham dough bi oh very nice dough so mu ngeen ko as da utis ko anywhere wala any asian shops parata ba sandi mu no sama tal li libin bi moo ko sandi paquet bi ci yalla waaye fon na dina ko screenshot ci video bi mako wone den ma def ko nga xamne ni ko mu ne gis bu ba man euh, betti di mi tabu yi ni ñu doon defar sausage roll sami mu ngi as well ba pare defal na fi cheese roll mu ne defal na dal ba bax baax ma tegal ko ni so at least li mom dina bax dina yobu, nit ñi suñu demee ba nga xamne mu ngi ronal rek nga replaçant macha allah soo léegi li mu war a defal moy wonjo bi mu ngi ni ma ko xoj wonjo bi nak wonjo bu bax la suma yama ko yone ni Gambia te mom la ñew ni xoj ni parce que xale mo moom mo leen gina lu nekk so ko mom la defal ni suma si kare nag nag ha madam nag holland time bi kaam xool leen time bi jot holland time fu mu nekk mu ngi after seven ten o'clock laa fi taxaw wax leen dëgg ten o'clock si suba ma ba ma ba ma intro fekk xale dem nañ daara si laa fi taxaw ba fu mu nekk seven mooy tëgg si yàlla baax na waa suma gars yi gis ngeen fu mu nekk nag rabataas mu wàññi ba pare am naa si ñaari butéel yu mag mu des man xaaram sol ko suma butéel yu am yi nii def ko rabaraba rek yéen a gën a xam business <laughs> bi lii moo dafa defar mina haara ma def <laughs> ko fii may bëggoon a defar buy waaye tey moom su ma fi xoojee buy dama ragal rek yéen ñeen mi ma seetaan rek nangu leen téléphone bi suma loxo xam nga ngeen ko defee waaye fexe leen daal ngeen def ko la ilaaha illallaah waaye duma waaye mu ngi nii soo mina haara ma def nii rek suma paree naa ko advertise suma suusal si su ko defee yépp mu ngi nii bu neex laa fi defar bu saf sax waaw waaw wàññi bu neex haneh neex a neex a neex neex la nii waaw soo bungo fu mu nekk daanaka bi mooy woon da last one fu mu nekk pare naa xaaral ma daw dem sangu su ko def su ma paree tamit ma ñëw tamit parce que dafa am lu spécial a wax macha allah su suma YouTube family bi ah ma dem sangu nag. suma gars yi mu nekk nag pare naa sangu julli naa suma julli yëpp ba pare waaye suma tànkay tamit fekkee wut ko de <laughs> waaye sant yàlla alhamdulilah sant yàlla fu mu nekk is after na is nine o'clock fu mu nekk on the dot nine o'clock waaye alhamdulilah que fu mu nekk suma xel bi fii na. ba nga xam ne xam naa ne def naa yi ma war a def yëpp si incha allah rabi suñu liggéey si biir week bi su ma wàccee liggéey ñëw rek comme nag laa doon ko waxee rek su ko defee nekk su nga xam ne noonu ngaa def rek incha allah incha allah rabi fan naa dinañ am holiday just at the end of the Ramadan dinañ istas nañ tij pour ista holiday incha allah so at least those two weeks dañu fekk si biir Ramadan towards and into Ramadan so dina help as well incha allah ku ma mun a prepare nag seen season Ramadan season ah seen season yi nga xam ne seen um, eat season yi si. ak seen it switch ma leen dee defaral incha allah su holiday boobu moom dina ma féebar bu baax a baax a baax waaye tamit ba loolu noonu pass celebrate macha allah di wax ne Home Cook with Marie Bachir ah, yéen yóbbu ngeen ko 2K subscribers macha allah macha allah macha allah di leen wax ne jëri ngeen jëf xaaral ma jël suma straw bi ah donc so lii ñun maa yéen ñoo ko celebrate macha allah. Hmm. wóññi bi tam neex na de oh. affaire bi sedd na si gi wux woote bi neex na boobu force la naan bi mooy pour man sa ko naan bi mooy pour yéen amu leen morom ndax yéen laa war a njëkkee sax waaye garaaw daa am ñu gis ma ba pare parce que man tam taxaw naa si dama dee taxaw si wàññi bi pare gaa waxee waat sax kuy xalam di ci jaay barke bi yaay boroom ak xànkeeñ waaw billaay woote bi neex na leen wax thank you so much jërë ngeen jëf si seen support parce que 2K subscribers man is a big achievement macha allah pour man bañ dooree Hongkongin ba léegi ngeen nekk si nekk si ma yéen ñu nekk si nekk si nekk si ba fu mu nekk nii dama doon tooga rek Zeynab ñu ne ma oh mami mami mami you hit 2K tey ma ne ko oh te gi nga fekk maa ngi la ñoo mu suma pere at the end of the video na len wax jeri ñun jëf thank you amu len morom wax deg ne yalla ah so len wax ne ba legi bu len fa am de share leen suñ page bi ngeen share ak sen xariti sen family, ak sen friends su ko def ñu dem outal di k Wow. Insya allah ma akan kañ am 3K waaw bu len bu len ko yagal nak de bu len ko yagal nañ ko taf taf rek su ko defé ñu dem outal 3K inshallah allah ah <laughs> Wah amulen morom amulen morom amulen morom wax dekum kum kii mu ne Bachir mun ta dem ak suñu YouTube family bi nga xam wax dëgg neex yàlla kenn du yéen ci man di wax thank you so much for the love yeah for the love for the support and then you know what for the for for I'm also for supporting our um little mini um side hustle as well which is our seasoning and also our post events business and also um, um our Betty Sleep Care as well which um uh, has been launched recently yeah so di wax ne thank you so much ba pare di leen wax ne ah, ngi am lovely am um, dresses for the um, pour you know what just for the Ramadan no it's not just for the Ramadan lovely dresses boo xam ne you can wear it at home Harama indi ko soo defee ngeen gis naka la mel it's very nice and lovely and also the price is very very very very cheap guys it's very cheap so if you want um some of them we have different different colors of it you can call me on my number dinaa ko def si suuf su ko defee then we can ship it to anywhere you are and also I um, I'm on Nata with my order I'm um, um Abayas we came last week but unfortunately um, dafa teel sold out For naa the dama one wane rek suma gars yi baax yi comme ni within two hours mu sold out which is the um, hooded um, abayas incha allah rabbi dina ñëwaat I will try inshallah allah my level best me indiwaatal na ko a couple of people in ma koo suñu watee rek dinaa ñëw gën wax leen ne ñëw na insha allah insha allah you guys thank you so much for watching um, our um, Ramadan preps today uh, it's a double celebration celebrating 2k and also you know celebrating the um, starting of Ramadan inshallah so di leen wax ne jërë ngeen jëf inshallah I'm um, um, looking forward to lovely lovely Ramadan recipes some uh, naan nag it's gonna be a little bit tight my schedule and everything but I will try my level best to bring you guys your lovely and quick quick quick recipes inshallah love you all my home cooking family